sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil aalamiina wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amiin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa asxaabihi ajmaina ixwat al imaani wal islaam wal ixsaan wal iraadati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki daaru ko ca kanam ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangu ñu suñu jaamu yàlla te jégal ñu suñu rëcc rëcc di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa ñuy siyaare mbokk yépp nag di leen ndokkeel ci liggéey bu sell bi nu yàlla boole di ci soññ sama bopp di ci soññ ñépp nag ñu gën cee jàpp bu baax a baax di ñaan yàlla subhanahu wa mu defal ñu ci lu koy suñ njort di jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa kon ginnaaw nuyoo benk ziar bi ñu dugg ci fatwa bi rek laaj yi ñu fi am tey euh, Cheikh Mbacke Diouf moo ko fi yónnee laaju jëkk yi ñu di ko ziar bu baax di ko ndokkeel euh, Cheikh dafay laaj Euh, nan lañu takkee ab sëy waaw takk ab sëy da xam na da ci am mbir yoo xam ne daal moom day aajo jàng lool rawatina lu mel ne arab bi am na ci yoo xam ne moom maanaam boo jàngul arab dëgg-dëgg moom day xaw a jafe ci yow lool waaye nag du tey boo defee sa góorgóor yi te mu doon sa yitte nga dem ci ku ko xamit maanaam mu mën la koo xamal war nga ko mën a xam téye ko Euh, day aajo nag yitte ju ama am solo ju baree bari ju kawe maanaam muy teel la waaw bu dee lu mel ni takk ab sëy bii muy laaj nii euh, ni ñu koy jàngale daal maanaam ni ñu koy defee mooy euh, ki nga xam ne kii moom la ñuy maye day wut ku ko maye dañuy wut ku ko maye waaye ki kii ñaan itam day wut ku ko ñaanal comme ni ñu ko aada woo di ko def ñun suñu ni ñuy mayee loolu mooy li xam ni mooy li jëkk ci maye gi muy euh, ku jigéen ki dañ koy wutal ku koy maye ku góor ki ñu wutal ko ku koy ñaanal su ko defee ñoom ñooy séq mbir moomu loolu itam kenn nit mën na koo def maanaam kenn mën naa ñaan daldi maye daldi di xutba waaye noonu ñu ko defit am ku ñaan am ku maye am ku xutba it ba tey baax na waaye daal bu dee ni ñu koy defee moom ci ni ko sunna tege daal mooy ab xutba boo xam ne bii maanaam da ca war a am te boobu moom arab lay doon waaw waaye bu ko defee itam ñi maye ak kiy ñaan kon kiy ñaan moom day musulu ci seytaane julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa jàng faatiha ak lu leneen lu mën a ci alxuraan aw saaru gàtt wala ay aay daal mu teg ko ca daldi ne diw euh, moom mi ñaan maanaam ne diw waxtu ko góor ga maa ngi koy ñaanal diw waxtulu jigéen ga ci farataas yàlla ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ak ak can loolu su ko waxee benn yoon baax na waaye itam su ko baamoo wax ko lu mat ñett yoon itam euh, baax na kii ñaan itam moom it mu jàng fatiha euh, jullit yonente bi jàng fatiha moom itam saaru gàtt mu ca mën a teg wala ay aaye mu jàng ko daal diw waxturu soxna si may naa ko diw waxturu ki ñu koy may ku góor gi ne may naa ko diw ci farataas yàlla ak sunna seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ak cen su ko defee maye bi moom noonu lay deme loolu nag bu ko defee loolu rek lañ lay may nga ne la léegi ci wàllu maye gi ginnaaw bi nga jàngee alxuraan gi baat yooyu nga wax ko ci olof jéem olof lañu dégg moom lañu mën a wax waaye xutba bi moom day nekk loo xam ne lii araab lay doon nga war ko jàng ndax xutba bi kuy xutba moom ña teew ca mbooloo ma nag dañ ne ku ca xutba rek baax na maanaam bu dee ni imaam teew na ñu wax ko mu xutba bu fa ñeneen teew itam ku mën a xutba itam du tere su mënee xutba bi su ko defee day baax xutba bi nag mooy alhamdulillahi rabbil alamin na'buduhu wa nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natuubu ilayhi wa naawus billahi min shururi anfusina wa min sayyiati wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wassalaatu wassalaamu ala rasulillahi a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim yaa ayyuhallazina aamanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuuna يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا bii daal mooy li nga xam ne mooy xutba bi nga xam ne moom bëgg nañ mu am ca te ñu jàng noonu ci arab kon daal loolu mooy li nga xam ne lii mënees na ne maye yàlla yàlla doole defal tawfiq bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa beneen laajam bi ci toppit mooy comme tudd doom itam muy laaj nan lañ koy defe tudd doom moom itamit xam naa na ma waxoon fee rek xam naa daal lay aaju daal loolu yonent bi waxam ne eh, sàkku xam-xam daal faratali ci jullit bu nekk ak jullit bu góor ak bu jigéen bu ne loolu lu ñu war a bàyyi xel la jéem a góorgóorlu ci fànn googu bu baax a baax muy wàllu sàkku xam-xam euh, euh, tudd doom it dañ ne bu ñu la indilee xale bi ba tegal la ko bala nga koy jël di ko tudd maanaam danga naan allahumma euh, lakal hamdu ala aatayta wa awlayta wa asdayta allahumma zidna wala tanxusna wa akrimna wala tuhinna wa athirna wala tusirna wajalhu baran taqiyan wajalhu baran taqiyan dañ loolu moom nga war a wax maanaam tofli ko xale bi dog koo meem nag jël ko euh, daal koy tudd tudd nag mooy dangay tiim noppam dejoor bi noddu ci tufli turwa wax tufli wax turwa tufli ca tiim noppu càmmeñ bi liqaam ca waxaat foofa tur wa teg sab loxo ca naqatal ba wax yaa barru juróom-ñaari yoon yaa raqiibu juróom-ñaari yoon yaa latiifu juróom-ñaari yoon daa ne bismillahi urxika min kulli daa in yuzika wallahu yashfika wa yunjika wa yaj'al barakata fika ambataka allahu nabatan loolu maanaam moom ngay wax boo tegee sa loxo ca naqtal ba maanaam ak ñaan gu baax ba mën a ñëw rek foofu itam mën nga ko ko ñaanal ci lu koy ci seytaan yi ak yu demee noonu moom it xam nga lu mel ni noddu ki nga xam ne ki jàngu ko mënu ko du bu mënta noddu du mënta du mën a tudd bu mënta liqaam du mën a tudd ñaan ko nga xam ne dañ koy ñaan nga xam ne da koy teg ca dangay teg sa loxo ca naqatal ba di ko wax lu ci nekk juróom-ñaareel loolu itamit euh, faaw lay aaju nga gëstu jàng man ko doog a mën a tudd kon daa bëri ci wàllu tuddoo doom moom itam noonu rek lañ koy tuddee beneen laajam bi ci topp ba tey Cheikh Diouf mooy ñaari gone góor ak jigéen ñoo xam ne dañoo bokk ku leen nàmpal dañoo bokk dañoo nàmpandoo wenn ween maanaam ñaari gone yu jigéen góor ak jigéen bu ñu tolloo ci nàmp ñu bokk soxna su leen nàmpal ndax ñoom ñaar dinañ mën a takkante déedéet maanaam ñaari nit moom bu ñu bokkee wenn wenn ku ne nàmp ca muy góor ak jigéen seen diggante day daal di araam duñu mën a takkante ndax loolu dafa bokk ci juróom-ñaari soxna yi nga xam ne yii moom la yàlla araamal ci mënee su leen a takk su ko defee loolu muy waxit ne jigéen ñi wàll googu dañ ci xaw a sàggan loolu lu ñu seetlu la lu ñu war di bàyyi xel la itam ndax ñaar ñu nàmpaloonoo ñaare bu kenn ki bàyyee doomam dem bàyyi ko fa kasa ka des doom jooju ñaari bu dee jooy ki fi des ak moom da koy daal di jël di ko nàmpal te loolu njuumte la su ko nàmpalee seen diggante day araam fawwu te ëllëg moom xamuñu nu muy demee mën nañoo dem ba ëllëg ñoom ñaari gone yooyu ñu may leen ab sëy te bu boobaa loolu du tax mu dagan euh, day fekk rek xamuñu ko sax nag waaye terewul sharia moom jéem tëral na ko te alxuraan na ko wax muy aay bu leer nañ ñi araam gi moom buñ ko defee rek maanaam day daal di taxaw kon loolu itam lu jar di bàyyiloo xel xel soxna yi la ci buñ tolloot ci di nàmpal gone yooyu muy góor ak jigéen ñuy fexe ñuy bañ a bokk ween di ko nàmp suñu xasee bokk ween nàmp rek dañu daal di araamal te dootuñu mën a takkante beneen laajam bi ci topp muy laaj lan moo tàqale nit ak bàyyi ma li tàqale nit ak bàyyi ma dafa bari lool lool xam naa dañuy am luñ ci tënk lool dinañ ci mën a wax ne teral nga ji nga xam ne moom la yàlla teral yàlla moom la yàlla teral doomu aadama dafa fés lool ràññeeku lool ci yeneen mbindeef yi nga xam ne yii ñoom la yàlla bind mën nañu daal maanaam lu yàlla bind rek maanaam doomu aadama muy nit moom la ci gën a teral ndax euh, lim ko terale bokk na ca euh, nit nekk koo xam ne kii moo nekkal yàlla ci kaw suuf maanaam nekk fi ab xalifaam boobu lañu fi bëgg a wax rek mooy yàlla mën nañu daanaka lu muy bëgg def lu muy bëgg a def ci suuf rek maanaam am na doomu aadama bu mu ko doomu aadama yu mu ko dénk ngir ñu defal ko loola ci kaw suuf loolu itam day bokk ci li doomu aadama gën a ràññeekoo ci bàyyi ma waaye tamit xel moom nga xam ne nii moom la doomu aadama am ak xarale gi nga xam ne bii nit da ko am ak xam-xam bi nga xam ne bii doomu aadama da koy xam ak doomu aadama ni mu mën a liggéeye nga xam ne loolu mu nekk ab xalifa ci kaw suuf moo tax euh, lu ñu war a liggéey ci suuf rek yàlla sàkk na ay doomu aadama yoo xam ne maanaam ñoo loola dañ koy xam man koo liggéey euh, ak bëggeel gu indépendant bi nga xam ne bii moom la aadama am nga xam ne maanaam du doon loo xam ne dañ koy forcer di ko def looloo xam ne lii bëggu ko wala waruñu ko waru ko wala doomu aadama waru koo def yooyu yëpp day bokk ci li nga xam ne lii dafa tàqale e, nit ak bàyyi waaye tamit bokk na ca li doomu aadama wuutee ak yeneen bàyyi ma yi maanaam lépp loo xam ne lii mu ngi dox ci kaw suuf rek maanaam doomu aadama moo koy doxal waaye tamit doomu aadama yàlla da ko sant ne ko kaw suuf si daa war a dund dañ ko war a dundal doomu aadama moo koy dundal dundal kaw suuf nag maanaam mooy di bay di sàmm di tabax lépp loo xam ne lii maanaam suuf da ko soxlawoo rek ñuy def loola waaye itam lépp loo xam ne lii day taaral suuf day taaral nekk ak doomu aadama ci kaw suuf te mooy mu mu dundal ko ne loole loolee yàlla da ko déng doomu aadama ngir moo ca mën a taxaw taxawaay ba nga xam ne bii noonu la ko yàlla bëggee waaye tamit bokk na ci li nga xam ne lii euh, doomu aadama wuute na ko ak bàyyi ma mooy doomu aadama lu mu def fii ci kaw suuf wala mu wax ko rek maanaam dañ koy bind teg ko note ko bu bis penc ba ñu réglé ko xool bu dee lu baax la lañ ko cay fay waaye bu def safaan la euh, lañ ko cay fay loolu yeneen bindeef ñoom bokkuñu ci boobu programme kon loolu yi tamit mu bokk ci li gën a am solo sax loo xam ne lii moom la doomu aadama war a gën a bàyyi xel muy mu gëm xam ne teraanga jooju ko yàlla defal waaye itam dénk ko suuf si mu war koo yoral yàlla na xam ne it maanaam lu mu fi def bind nañ ko lu mu fi wax bind nañ ko waaye fu fi dem ci béréb yi itam bind nañ ko te bu bés penc ba yooyu yëpp dañ koy jël teg ko peese ko lu ca nekk loo xam ne lii lu baax la lu neex yàlla la yàlla defal ko ci ay teraanga waaye tamit lépp loo xam ne lii ab safaan la itam doomu aadama bi def ko fii ci kaw suuf su boobaa buñ ko réglé itam dañuy natt xool la nga xam ne lii moom lañ ko ca war a fay teg ko ko ca ay daan mu bokk ci li nga moom la yàlla wuute ak bàyyi ma nga xam ne bàyyi ma moom yooyu yëpp moom du leen dal maanaam bokkuñu ci boobu programme bokk na ci it li doomu aadama ràññee ci bàyyi ma maanaam li ñu wóote ak moom muy ni yàlla bind doomu maanaam nit nii mu mel maanaam forme bi ko yàlla bindee ak euh, noonu mu def doomu aadama mel nii euh, ni mu ko bindee maanaam mu mbokk ci li gën a ràññale nit ci bàyyi ma ndax yàlla dane man day maa bind nit ci gën jaa rafeti bindiin waaye nee na dem bi ma ko bindee moom nit mu gën a nekk ci lépp mu gën a rafet lépp loo xam ne ni moom laa bind gën a jub lépp loo xam ne moom laa bind euh, euh, bu doomu aadama sàgganee dina ko delloo mu nekk ki nga xam ne kii mooy gën a suufee la suufee lépp loolu nag mooy lim doon gën a laaj ci ne doomu aadama dafa amoon xel te yàlla teral ko te ñu gis ne doomu aadama yi dinañ def loo xam ne lii ay jëf la yoo xam ne yii day dem ba daanaka dañ koy bëgg a niróol ak jëfi bàyyi ma wala jëfi bàyyi ma sax maanaam mu gë def jëf yooyu gën a yées jëfi bàyyi ma yi maanaam xel moom muy wax maanaam mooy sabab si xel mee nga xam ne mii moom la yàlla defal doomu aadama maanaam loolu la yàlla loolu la nit ki war a xam mu teraanga ju rëy joo xam ne ji yàlla da ko koo defal mu war ci ay sant yàlla ci di jaamu yàlla ci moytu li muy tere ak di def li muy digle waaye tamit xel moom nga xam ne moom la moom la yàlla defal nit moo koy jàngaloo ñaar itam mu am xalaat bu rëy rëy ci lépp loo xam ne lii mën na koo def ci safaan lu neexut yàlla mu mën koo def kon xel mi daal lay njariñ la te yàlla nañu ko yàlla defal mooy mu xéer ñu ci ñu gëm yàlla wéetal ko di ko jaamu di ko sant ci xewal yooyu mënu defal waaye buñ ko toppee ca geneen fànn ga nga xam ne moom la seytaane di jël su boobaa it day nekk safaan ba yàlla yàlla musal loolu mu wax daal ne xel mi moom yàlla defal na ko nit waaye itam ci la loolu nit ki day tax léeg-léeg ñu gis ñoo xam ne ñu dañuy def loo xam ne di day yées jëf bàyyi ba loolu lépp problème mu xel mi la rek kon bi nu yàlla defalee xel itam maanaam won nalu yoon wi nga xam ne ci leen war a aw won nu yoon nga xam ne bii waruñu caa aw kon yàlla yàlla defal tawfeex ba suñu xel moomu ñu di ko jëfandikoo ci loo xam ne lii moo neex yàlla subhanahu wa beneen laaj bi ci topp te mooy bi mujj ñëw tey ci fatwa bi mooy sëñ Muntaxa Sekk moom itam moo ko fi yónnee ñu koy ndokkeel bu baax muy laaj moom ndax mënees na tudd gone bala moo am juróom-ñaari fan waaw loolu kay lu mën a nekk la sunna nungu na ko euh, seyduna muhammad sax def na ko saxaaba yi am na ci ñoo xam ne ñii mas nañ koo def waaye nag liy sunna daal seyduna muhammad dane euh, bépp gone goo xam ne gi day doog a juddu maanaam dafa mel ni ku ñu taylee maanaam dañ ko war a jot maanaam dañ ko war a reyal am xar ngir mu jot ko tayle bu nga xam ne gii daa mel ni dañ ko tayle loo tax si na ma ne ne euh, ku am doom bu bés ba dellusee maanaam bu amee juróom-ñaari fan nanga ko wutal aw tur te reyal ko am xar maanaam tudd daal juróom-ñaari fan fan bi moo gën a sax waaye tamit maye nañu gone gi bu juddoo rek mën nañ koo tudd ci biir juróom-ñaari fan yooyu nga xam ne yi moom la ñu wax muy semaine bi euh, ne nañu maanaam bés buñ ko ci tudd rek rayal ko am xar baax na waaye tamit lañ ca gën a taamu daal mooy ñu yóbbu ko ca euh, juróom-ñaareelu fan ba ndax Seydina Muhammad sallallahu euh, doom ji tudd Ibrahima ne bi mu ganee àdduna moom Ibrahim Euh, ak guddi la Seydina Muhammad daa ñëw ci saxaaba yi ne leen guddi gii de am naa ci gone goo xam ne gii bu góor la waaye tudd naa ko turu sama waajur wa tudde ko Seydina Ibrahim muy doom jooju tudd Sey Ibrahim euh, Seydina Muhammad tudd na ko te agut ci juróom-ñaareelu fanam kon bu ko defee ne nañu euh, semaine boobu ñuy wax muy man nañu wax ne juróom-ñaari fan la ne nañu bés boo ko ci tudd rek boo ci seet ba neex la nga tudd ko rek rayal ko xar loolu mën naa nekk kon yal nañu la doole defal tawfiq bi jooy si na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tawa